العبادة والخدمه دي جامو يالا اك لغي الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقيتي العبادة والخدمة noo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp du ñaanal ñëpp jàmm dellu si nag ci sunu jotaay bi ñuy faral di seq ay gis ko ne di ci tontu ay laaj tey lu mat juróom-ñaari laaj dikk nañu fi fas yéene ci tontu sunu kem kàttan laaj bu njëkk bi day wax ne hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxee ne ku dem ci seetkat mu wax ko dara mu gëm ko ak ku ànd ak soxnaam te fekk mu toll ci gis baax wala mu siq ak soxnaam jaare ko fuñ ko warta jaare ñooñu yonte bi dama xane ku ne ci ñooñu dafa weddi li ñu wàcce ci yonte bi salallahu alehi wasallam muy laaj ne ndax loolu day firi ne ñooñu dañu génn ci lislaam wala rek day firi ne lañ def bàkkaar bu mag la waaw borom xam-xam yi day dañ koy firee mooy dañ naan génn ci lislaam moom li tax kenn ci ñooñ di ko def mooy bu fekkee ne loolee mu def da ko jàppee lu dagan dafa xam ne yonente bi tere na ko ba nag moom nag mu ne dagan na nga xam dafa da dafa wane ne moom lu dagan la te fekk mu xam ne yonente bi tere na ko loolu moom weddi yonente bi la te weddi yonente bi ku ko def génn ci lislaam waaye bu fekkee demewut noona kon dañ koy firee rek ne ak yonente bi da ciy wone ne benn ndax weddi danañ ko jëfandikoo jublu ci weddi njekk weddi njekk mooy kon daa weddi njekk mooy daa weddi njekk yàlla fi yàlla jaar ak moom ba noppi tere ko yu mu di ko def kon daa weddi njekk wala rek yooyu da caa jublu rek xuppe ne lu rëy rëy la rek ma xaw a jege wet kon daal mooy ki nga xam ne def na leen lenn ci yooyu waaye def ki jublu ci wax ne lu yooyu dafa dagan te xam ne yonent bi tere na ko bu deme wut noona kon lu firi ne dafa génn ci lislaam ñaareelu laaj bi من عجتي لا يجيتي سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لول داي واخني laaj ji mooy bu fekkee faasiq faasiq mooy ab moykat wala kàccoor bu leen ab kàccoor andilee xibaar na ko wérlu bu leen ko daal di jël rek sukkandiku ci waxam moom rek nangeen ko gëstu ngir ngeen bañ dal ci kawi nit ngir ñàkk xam bu ngeen ci jógee di ko rëccu moom day laaj ne ndax li laay ji firi mooy ki doon kàccoor moom saay-saay la wax sax ki doon saay-saay la ñuy bañ a nangu ab nettileem wala ku nettali ku ne dañ koy jàppe kàccoor gëstuwaay nettaleem déedéet ki doon kàccoor ba noppi la ñuy wax ki doon kàccoor mooy ki doon ab mooykat mooy koo xam ne maanduwut rek lay firi ku maanduwut rek ñàkk a maandu nag ay ay ay ay ay tegtal lañ ci am mooy ku ku kuñ xam ak ñeme yàlla ci moom dañ naan mën naa mën naa wax lu dul dëgg ñeme yàlla nag mooy di ko mooy mooy goo xam ne amut loo ci nëbbu amut loo ci suturaal di ko def ci kanam nit ñi kooku dañ naan dafa ñeme yàlla ki ñeme loolu nag dañ naan ñeme ne kon ne kon ñeme naa wax lu amut moo tax boobu waxe dara duñ ko dal di nangu dañ ko gëstu seet ba am ci leneen lu koy dëgëral ñu door ko jël bu amut lu koy dëgëral leneen ñu bàyyi ko loolu la jublu waaye jubluwut ne ku wax ku ne rek dañ ko war a jàppee kàccoor gëstu waxam koo xam ne xam nañ ci moom ak maandu bu waxee dañuy nangu li wax waaye ki xam ci moom ak ñeme yàlla rek kooku moom bu nettalee deesul sukkandiku ci nettaleem waaye dañ koy gëstu wérlu ko leerlu ko buñu amee leen lu ko dëgëral ñu door ko jël luñ ca teg mooy kii nga xam ne dafa ñeme yàlla mën naa wax lu amut ñu sukkandiku ci lam wax ba def loo xam ne ginnaaw ba dañuy xam ne la waxoon amut te kon rëccu lañ cee def loolu ab xew-xew dafa aju ci xew-xew bu amoon yonent bi dafa am ñu mës a tuub dugg ci lislaam mu yónni fa ndaw ngir ñu jox ko seeni asaka moom ba leen jubee ci nettali ñii dañ ne daa mosoon am aw dig ak ñoom mooy dafa mosoon dëngoo ak ñoom ba tax mu sosal leen ñëw ci yéen tamit ne ko ñee dañoo dañoo lànk joxe am ñu ne demoon noonu da leen a jub rek ñoom itam bañ ko séenee ñu yàkkamti bég ci ba war seeni fas di ko teeru moom mu ragal ne dañu ko bëgg a song mu daal daw dëpp ci yonente bi ne ko ñeekat dañoo weddi ba lañ maa bëggoon a rey sax e, yonente bi daal di yebal ay nit ne leen dem leen gëstu loolu bañ ko gëstoo xam ne demewutoon noonu yàlla di waneen nag bu ngeen gaawatu woon ba ba ba ba topp waxam rek da ngeen dal ci kaw ñooña te kon da ngeen koy rëcc bu ëllëgee ñetteelu laaj bi day wax ne ku doon julli tusbaar ba dem ba ci taaya ju mujj ji bay bëgg a noppi fàttaliku ne ñaar rakk yu njëkk yi bu ci ne bàyyi na ci farata rakk bu njëkk bàyyi na ci fatiha jàngu ko bu ñaaral bi tam bàyyi na ci sujjóot ak sujjóot kon nan lay def loolu moom aju ci tusbaar rek ak ñaar rakk yu njëkk yi ki mujj waaye julli gu mën di doon rek bépp rakk boo xam ne nit ki bàyyi na ci farata te bi muy laata sëlmal mu fàttaliku ko boobaa da dañuy wax dabaatal lay def mooy day indiwaat ràkk booba rek indee ko nam ko nam ko waroon a indee bam cay toll kon bu de ci misaal mi ki julli tusbaar bay bëgg a sëlmal fàttaliku ne ñaar ràkk yu njëkk bu ci ne bàyyi na ci farata kon day jóg daa di ñaar rakk yu njëkk yi indi ñàkk njëkk indi bu njëkk ba defe ko nam ko waroon defe rek mu ca noppee daal di jóg du toog day jóg indi war rakk bu ñaareel bi def ko nam ko waroon defe daal toog taaya sëlmal bu sëlmalee ba noppi nag ñu sujjootaan ñaari sujjoot ndax dafa yokk yokk gi mooy ñaar ràkka yi mu wacc lam ca jot a def lépp da ko yokk ci julli gi ndax bokku ci ndax day mel ne kon julli na juróom-benni ràkka ndax ñaar yu baaxut ya ñaar yu baaxute da leen leen a yokk moo tax mu koy muy sujjoot bu sëlmalee ba noppi ñentelu laaj bi day wax ne jigéen ñu ñu fase te fekk muy nampal lan moy doon iddaam ndax nee jigen lu ci bari jigéen buy nampal du gis mbaax te idda ñetti mbaax la war doon waaye kii nàmpal nag lu ci bari du gis mbaax kon lan mooy nekk iddaam ki nga xam ne moom kuy gis mbaax la kuy gis mbaax la kuy gis mbaax la kooku moom iddaam ñetti mbaax lay doon doon te na sax kon mooy bu dee nàmpal lum yeex yeex yeex yeex a gis mbaax it ñetti mbaax mooy doon mooy doon iddaam ndax kuy gis mbaax la ki nga xam ne du kuy gis mbaax kooku mooy def iddaam leneen koo xam ne àggagul ci gis mbaax ngir ngir gone wala koo xam ne weesu na gis mbaax ngir doon mag wala koo xam ne xëy na xeetu wéere di moo tey mooy gis mbaax <coughs> ñooñu ñoo ñi nga xamne ñoom leneen lañuy def de lu mbax wa ki nga xamne mbax mbaaxam day sore lu sore sore ginaaw koy gis mbax la rek ay mbax lay idam ci ay mbax la koy jappé kon ki nampalit ginaaw koy gis mbax la kon ñetti mbax mooy doon idam lum sore sore wala lum yeex yeex xam yoonu jikko ay yeex waaye bu ko xasse gis yoonu jikko yee ya ci dess mom day day deme noom dan deme rek waaye lum yàgg-yàgg daal ginnaaw koy gis mbaax la rek yetti mbaax yooyu ñooy lekk iddaam juróomeel laaj bi day wax ne koo xam ne dafa jënd <coughs> dafa jënd dara ci fëgg jaay dafa jënd yére ci fëgg jaay fekk ca ceenug or te nam ko ca fekk xam na ne kii ko ko jaay moom it yëgu ko mooy kon fa mu jóge daal lay fa fa fa jaay ba jóge foofa ko ceenug or gi toppe nga xam ne kon du mën a xam boroom loolu lan man atte lay yor ndax atte far lay doon wala ndax sañ na ko jëfandikoo Euh, a tab for lay doon waaye sañ na ko jëfandikoo ndax for itam sañes na ko jëfandikoo léegi li ko wootaleeg for geneen rek mooy for geneen moom day doon lool séentu nañ borom feeñ ba tax na war nga koo yëglu yëgle war nga koo yëgle ab diir bu jaadu yëgle ko itam ci anam yiñ baaxoo yëgle mbirum mel noonu ak ci béréb yiñ ko baaxoo yëgle ci diir bu jaadu boo gisul boroom nag sañ nga koo jëfandikoo waaye boo koy jëfandikoo it danga koy def te jublu ne saabu boroom feeñee nga fay ko sañ nga koo def rawati nag bu dee for goo xam ne moom seentuwuñ boroom feeñ ndax lu jóge ci meneen réew jaar ci ay béréb ba dem ci meneen réew ñu jaay ko fa dana jafe borom mën a feeñ waaw lu man di moom jàppe ko noonu rek jàppal ne luñ far la sañ nga koo jëfandikoo rek te ne bu borom feeñee nga fay ko bu fekkee sax mënuñ koo jàppee li ñuy tudde euh, rikaz mooy for yi nga xam ne moom euh, mën naa yor atte boobu itam nag waaye lenn moom mujj lenn la rek mooy sañ nga koo jëfandikoo rek mooy for yi nga xam ne dañ koy fore ci ay gent fa ay nit mosoon dëkk lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ñu lu yàgg yàgg yàgg am na yuñ fa bàyyi woon yu am njariñ suul ko wala moo suulu ñu toogaat lu yàgg lool am ñu fa ñëwaat dëkkaat fa am ku jekk-jekk rek gis ca dara loolu rikaas lañ koy lañ koy lañ koy tudde loola moo koy moom waaye nag da cay génne xeetu asaka xeetu ci da ko ciy génne da ciy génne loo xam ne da koy jox yàlla eh, da koy xaaj juróomi xaaj benn xaaj bi mu jox ko yàlla mooy kon mu jox ko ñu asaka rek moom bu dee àtte boobu lañ ko jàppe kon moom moo koy mom waaye eh, war na ko xayma kon lu tolloog buñ ko xaajoon juróomi xaaj benn xaaj bi mu saraxe ko buñ ko jàppee àtteeb for nag buñ ko digal mu saraxe ci dara dañ naan ko rek sañ nga koo jëfandikoo waaye sa borom feeñee nga fay ko ñaar yooyu nag mën nañoo seet fan ko ci féetale juróom benneel laaj bi day wax ne moom dégg na li ñu tontu woon ci laaj bu ñu laajoon mu aju ci gone bu nekkul muskàllaf te sàcc mooy dégg na lan waxoon waaye mu ne nag bu fekkee gone googu nag dafa rey nit lan ca waxoon rek la ba léegi ndax yemuñu woon rek ci wax atteb bu sàcce waaye atteb lu mën di def lañu waxoon dañ doon ku nekkul muskàllaf lu man di def ci yi nga xam ne yoon teg teg teg tege na ci ay daan dee su ko teg daani yoon yooyee waaye nag manees na koo yar yar kon bu reyee nit it dee su ko rey waaye nag manees na koo yar manees na koo yar mooy war nañ koo teg beneen yar bu bokkut ak atte bi yoon tëralal boppam bu dee sàcc ak bu dee rey lu mu ci mën di doon ki nekkul muskàllaf dee su ko teg àtte yoon yooyu waaye nag manees na ko teg ab yar boo xam ne kii àtte mooy seet lu jaadu loo xam ne bëgg ko tegee daal mën na tax moom bo ëllëgee du xalaata def lii keneen ku ko gis itam wala mu xam ko moom it bu ko xalaatati juróom ñaareelu laaj bi mooy bu mujj bi day wax ne xam nanu ne yi dund ci géej lu ci medd lu ci medd dana dagan loo xam ne day dund ci géej di ci jéeri nag ngan may atteem loolu day waram xam-xam dañ cee wuute waaye daal liñ gën a jàpp daal mooy buñ ko jëfandikoo bu meddee ku ko bëgg a jëfandikoo daal rent ko ndax loolu daal moo gën a wóor loolu moom xeetu lu gën a wóor lañ ci jublu ndax ñenn ñi dañ ne mën naa dagan waaye ginnaaw am nañu wax ne daganut kon bañ koo jëfandikoo tarenti wuñ ko daal moo gën a wóor loo xam ne nag am na ñoo xam ne nag lu xas ci dund ci jéeri rek kenn waru ko jëfandikoo tarenti wuñ ko loo xam ne ci géej rek lay dund maanaam ci ndox ci ndox rek lay dund loolu mooy loo xam ne fiñ ko leen di tam dinañ ko see kon mu dee lu gën a wóor daal mooy moom luy dund ci géej di dund ci jeeri mooy ci lu dul géej euh, nañ ko ren di door ko jëfandikoo waaye bu meddee buñ jëfandikoo donte am nañu rek mënees na ko itam euh, li waral loolu mooy ginnaaw yonente bi moom luy dund ci géej la wax lii nag di dund ci géej di dund ci lu dul waa day mel ne tegtal yi day day mel ne luy lu woroo ndax bu ñu xoolee ci géej li dund dañ naan kon dana dagana lekk bu meddee itam waaye bu ñu xoolee ci géneen wet tam day ne eh, ñàkk dund ci géej itam am na ci moom ndax dana dund ci lu dul nga xam ne ku ko def nag moom wuute defa ak wuute moom mooy bañ koo jëfandikoo xanaa rendi ko ki ko def moom war na ko ne defut tere waaye ki jàpp ki ki lekk mu medd naa am mu doon luñ ko tere mën naa am fu mel noonu dañ gën a wóor mooy def la nga xam ne moom wóor na la ne ca luñ lay tere moo gën a wóor kon mooy bañ koo lekk daal bu fekkee rendi wuñ ko euh, loolu mooy kon laaj bi fi dikkoon maa ngi sant ñëpp di jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa wa barakaatu.